waaw projet bi ñun ñëpp ñoo ko bokk gisandoor ni mu dem ni mu tëddee dañu xëy xëy journaux yi siiwal ne ñun dañu woo ñu bëri woo ma ci samay soppe waaye dañ jot ñun di jotuñ convocation ñu demee nag ba jëmmi jamono la ñuy door a jot convocation moo nekk nii convocation bi li ñu ci def mooy ab euh, appel la boo xam ne ñoom ñoo ko def mooy ministre bi nga xam ne moo yor wàllu justice. Euh, bi nu ñëwee nag li nu dégg justice bi wax dafa mel ni ñun bokkuñu woon ci ñi nga xam ne ñun la soxla woon comme war leen a attewaat euh, li ñu fisal mooy am juróom-ñeenti xale yoo ñoo defoon appel. ñoom la ñu waroon a woo dégluwaat leen ñu soxla woon comme ay témoins. waaye jàpp naa ne loola hmm, waroon na ak liñ bind fii ci kayit bi convocation bi doyoon na sëkk rek ñu ne Aliou Ndao dañ laa soxla comme témoin bu boobaa mobilisation bu rëy bii nga xam ne nit ñi def nañ ko bàyyi seen yitte bu ci amante seen ñoom ci wàllu seen xarala ci wàllu métier mi waroon na ak foofu nga xam ne kayit bi ngay jot muy convocation bi ngay jot lañ la soxlaa da nga ciy fekk loolu nag moo ci amut xam naa yombul ñoom ëllëg bu koy defaat danañ ko defee leneen incha allah. projet bii ñu woon imam Alioune Badara ndaw lu lenn lu dul fédérateur bi mu doon. Mm-hmm. ba nga xam ne imam Alioune Badara ndaw xew xew wu diine boo gis ñu organiser ko woo ko ca mu ñëw wuy si. te dafa yaatu lool am fa cër lool am fa lu mën a wax lu jëriñ lool loolu nag ñun ñëpp nañ ci jëlee leçon l'essentiel yi ñu koy bàyyi xel rawatina fii jamono ju toll. jamono ji nga xam ne euh, franc-maçon yi jub nañ taxaw def mbooloo mbooloo mu nëbbu waaye di yàq lu fës ci àdduna bi lobby LGBT yi jub nañ taxaw def mbooloo mbooloo mu nëbbatuwul comme ni franc-maçon yi nëbboo mais ñu ngi ne fàng di yàq li ñuy yàq ak di woote li ñuy woote ku bëgg a jëmmërloog ñooñu te defoo te nekkoo mbooloo doo réussir dara loolu faw ñu bàyyi ko xel bu defee loolu lañ doon tontu ci sa laaj di masa bu baax imam Aline badra Ndaw waye di jaajeufalat bu baax it sénégalais yi ñi ñew ak ñi nga xam ñewuñu tay ñepp je suis imam Aline badra Ndaw la ñew ñepp ngir lan euh, gunu yek seen bop ci imam Aline badra Ndaw ndax sénégalais yi nag legi fi mu toll nii kenn jëndu len benn marché kenn jëndu len daral kenn jëndu len ci benn supermarché yalla dogal na xel yi xeyna sax da fay ëpp lélé léeg yi ci ndaw ñi waye ñu ragné lañu ñu xamé lañu ñu kenn mënta détourner lañu ba tax na bu mbir leeree ci seen bopp dañuy waaxu dëgmal ko te kenn mënu leen ci dëgg discours imam Alioune Badara ndaw leer na ci bopp ndaw ñi ñu ngi koy dégg yàlla jëm kanam taxawaay bu gën a rëy bi ànd sàmm ji koy tax ndax nag diine ji ñun bu wax dëgg ñu tuuti lañ ci pas-pas yi ñun ñu tuuti lañ ci la ko doon sàmm démb bu deret la woon ca yeneen beeki saxaabaam ba wàcc tey ci sunu mag ñi ñaataa fi taal jihaat ngir sàmm mbaax gi ñun tàlloowuñ ñu jihaat yëkkatiloowuñ ñu jaas yi dañ ne ñu rek naqarlu leen ci seen làmmiñ doole bu ngeen ko amee ñañ ko dénk nañ ko dindi ñun dañuy dimbale ñiñ dénk suñu doole ndax réew mi pëccëxoo amu fi dañ ko nose man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi jàngalekat yëpp nangu nañ ne bi yadihi du lépp état la de du lépp état la ndax am na koo xam ne bi yadihi moom mën na am lu mu régleel boppam bi yadihi waaye nag li ëpp ca loola état moo koy réglé ki jóg nag ka topp ca deuxième niveau ba mooy fa bi lisaani yi mais ñun daanaka ci loolu rek lañ nekk imam Aliou Badara Ndaw tamit ci loolu la nekk mooy fa bi lisaani yi mooy gis na ay agenda LGBT agenda franc-maçonnerie agenda nitu seytaane ci tënk mu jug naan attention ñi ngi song alxuraan di ko jaare fii ñi ngi attaque yenent bi di ko jaare fii ñi ngi def lii lu yàq diine ji mais loolu dafay alerter ñi ñu dénk doole pour loolu ñu saafara que nga xam ne moom moo nekk ci suuf mooy kii naqarlu ci xolam kii wax ci làmmiñam mën na boole ñaari yooyu noonu yëpp kon liggéey bi gisaguma lu koy feren xanaa ñun ñi nga xam ne ñoo taxaw ñun ñëpp ñu toog waaye du kaso du bàmmeel ndax yàlla balaa faat kenn ku waroon a taxawee lenn lu mu soxla dana tàggat keneen ku ko mën a taxawee mu soog faat kooku kaso nag moom bërëb la boo xam ne xalwa la ci gor mhm. dafay defarawaat génn yokk jàjjam mhm. loolu ba nga xamee ne euh, defe naa ibnu taymiya ñu ngi ko doon tëj di ko finnaal waxoon na wax ju mel noonu mooy bu ñu ma tëjee kaso xal wala ci man bu ñu ma génnee ma nekk euh, nit koo xam ne damay def siyaaxa maanaam génn di wër ci àdduna la ca nekk ci yiw yàlla defal ma ko ki am pas-pas boobu noonu li bokk la keneen ki nga xam ne nii loolu la tiit loolu la ragal ndax mokkal nañ baatu laa ilaha illa لبعض بدي ونو نخم نيو لا إله إلا الله